di leen sant di leen gërëm ci invitation bi ngeen nangoo répondre ci répondre invitation bi vraiment muy invitation boo xam ni dañ ko def ci cadre stratégie nationale de sécurité nga xam ni tey ñun ñëpp dañu connecté ci internet mais internet bi luñ ci connecté connecté xale yi ñoo ci ëpp ñu ci connecté wu mais xale yooyu dañu xaw a vulnérable mooy xale yi dañu xaw a fragile moo tax il faut ñu xool na la ñuy def ba aar leen ci internet bi moo tax gouvernement Sénégal tëgg benn stratégie nationale boo xam ni de sécurité la sax booy ci mbiru protection wu ci biir internet bi ci Sénégal yëpp la mais mbiru ndaw ñi dafa am pàcc boo xam ne ñoom lañ ko jagleel te ku xam ndaw ñi xam ne ñoo gën a présent ñoo gën a dynamique ci internet kon ñu protéger leen dafay nekk devoir ak responsabilité gouvernement Sénégal moo tax gouvernement bi lancé benn stratégie boo xam ni ci sensibilisation la jëm tàggat xale yi ba même suñ nekkee ci internet nan lañ leen di jox ay jumtukaay yoo xam ne dinañu tax ñu mën a protéger seen bopp mais également protéger seen famille. donc loolu lañ doon euh, ubbi tey ñu ciy tàggat ñi nga xam ne ñooy acteur u yi nga xam ni xam nañu ni ñoom ñoo gën a euh, dynamique également ci monde médiatique bi surtout ñi nga xam dañu nekk yor presse en ligne loolu dafa doon jaadu ñu bokk ak ñoom mais également tous les acteurs des médias. ndax dafa am pilier boo xam ni dafa tudd média et communication ci stratégie nationale plan d'action bi nga xam ne moom la ñu tëral donc tey ñoom lañu doon dajale fii mais ñu am nag partenaire boo xam ni mooy suñu premier partenaire ci protection xale yi en ligne muy l'inspection d'académie donc kon euh, inspecteur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa teewaay mais également ci li nga wax ni yéene nga pour ñu am partenariat entre ministère économie numérique ak télécommunication ak académie bu Thiès muy ne loo xam nag euh, partenariat boo xam dinañ ci sawar ndax yow xam nañu sa taxawaay xam nañu sa yéene mais également liggéey bu rafet bi ngay def cees yàgg nañu liggéey démb avant ñuy ñëw fii te dafa naa ni fi ñu ñëwee excès fii tamit ci ministère bi da koy gën a yokk rek mais du ko wàññi di la félicité ci leadership bi ngay montré ci Thiès ci académie Thiès ak euh, vraiment ci Sénégal yépp muy un modèle boo xam ni dinañ ci jaar ci yow pour mu nekk début partenariat. entre ministère économie ak euh, télécommunication ak yeneen académie Sénégal yëpp donc ba tax na kon loolu na sexel sa xel dal mais également dinañu accompagner équipement informatique lycée Malick si bi nga xam ni tey mu ngi am atelier de codage boo xam ni waa Sonatel ñoo koy def pour jàngal xale yi ay rudement yoo xam ni ci la ñuy mën a commencer di protéger seen bopp ndax dans les prochaines années la codage ku ko mënul da ngay vulnérable sur internet il faut xale yi ñu jéem leen ci initier d'abord te defe naa ni Sonatel ñëw na pour accompagner ñu ci mais également sur le plan logistique monsieur le l'inspecteur d'académie dinañu xool nañ lay ak nañu lay accompagner mais également même l'administration territoriale maa ngi tooñ gouverneur ni il faut yéen tamit ñu jàppale leen connecter leen internet équiper leen pour que yéen tamit ngeen nekk au niveau euh, au même niveau que l'administration centrale pour ngeen mën a accompagner les politiques publiques xam ni yéen ñi ko war a mettre ou bien superviser ko au loolu aussi dafay jaadu donc pour ñu accompagner leen connecter leen à internet yéen ñëpp réseau ci fibre optique gu ADIE pour dire rek vraiment pare nañu monsieur le gouverneur accompagner leen accompagner structure état bi yëpp. ci région bu ñuy dem rek damay jéema a su ma fa demee comme ni ñu def Kaffrine gouvernance yeeg sous préfecture yeeg euh, foyer des femmes yeeg lycée yeeg yëpp xool nan la ñuy def ba mën leen a jox un coup de pour mu nekk visite boo xam ne day am njëriñ am njeexital ci région ba ñun loolu la ñuy jéem fii tamit incha allahu rabbi noonu la koy defee. donc bëgg tàmbali Thiès ñu ni Thiès lu ñu am Thiès lañ koy yóbbu mais bien que dañ naan bay sawewu tànk mais vraiment Thiès également comme région Sénégal yëpp mérité nañu ñu accompagner leen loolu mooy suñu devoir président de la République loolu la sant pour ñu taxaw population yi taxaw administration bi jàppale pour qu'on ait une administration moderne mais également ñu dem ci dématérialisation des procédures loolu lépp day demander ñu renforcer nit ñi capacité leen former leen loolu lépp ñu ngi ci liggéey incha allah rabbi en tout cas loolu rek laa ci bëggoon di wax di sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. commencer par euh, rendre grâce à Dieu de l'opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui de nous retrouver ici à Thiès pour un atelier de formation et de partage sur une problématique globale complexe aujourd'hui qui touche les jeunes, plus particulièrement les élèves. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, je voudrais vous remercier d'avoir euh, piloté et supervisé l'organisation de cet atelier. Vous remercier pour l'engagement républicain dont vous avez fait montre, comme d'habitude d'ailleurs, avec toute l'administration territoriale. À travers vous, remercier le préfet et l'ensemble des autorités étatiques qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet atelier. Remercier également M. l'inspecteur d'académie. Comme il a dit, c'est un partenaire. Mais nous avons la chance à Thiès aussi d'avoir un inspecteur d'académie très engagé, très dynamique, mais également très au fait de, de l'évolution du système éducatif. Avoir un leader pareil à la tête de l'Académie de Thiès est une chance. Donc c'est pourquoi, monsieur l'inspecteur, je voudrais vous féliciter, vous remercier pour votre engagement, mais également l'accompagnement. Voilà, Billy, soyez rassuré, monsieur l'inspecteur d'académie. C'est avec un énorme plaisir que nous irons vers un partenariat entre l'Académie de Thiès et le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent être résolues et prises en charge qu'au niveau des académies. Que s'il y a une collaboration, un partenariat dynamique entre les niveaux central et les niveaux décentralisé. Et l'académie, à mon avis, offre donc euh, l'instance ou bien la, euh, l'organisation, la, la, la structure, à mon avis, dans le domaine du système éducatif, la plus appropriée, vraiment d'accompagner les ministères dans la prise en charge de cette problématique globale. C'est pourquoi, monsieur le monsieur l'inspecteur, vraiment soyez rassuré donc de la disponibilité vraiment du département de nouer ce partenariat. Et chers participants, Vraiment vous dire que c'est euh, avec euh, beaucoup de joie vraiment que nous vous accueillons aujourd'hui et vous dire que cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan donc de, sur la protection des enfants en ligne, validé en février 2018 par l'ensemble des parties prenantes, conformément à la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité SNC 2022 qui a pour vision au Sénégal en 2022 pour un cyberespace de confiance de résilient pour tous. En effet, ce plan d'action national sur la protection des enfants en ligne se veut d'assurer l'équilibre de la protection de nos enfants dans le monde numérique avec notre devoir de les responsabiliser par l'utilisation du mobile et des TIC. Ainsi, c'est un réel plaisir pour moi de présider cet atelier qui se déroule en marge de la session de formation des élèves sur le développement d'applications mobile avec le thème La sécurité des enfants en ligne au lycée Malissi de Thiès. L'objectif étant de vous amener à une meilleure prise en charge des enfants dans le traitement et la diffusion des informations en ligne à travers la mise en œuvre des différentes activités du pilier média et communication. Aussi, compte tenu du contexte pandémique et des dérives notées sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux, ces activités participeront à la vulgarisation des cybergestes barrières à adopter par les populations en vue de l'émergence de cybercitoyens responsables. Madame, Messieurs, comme vous le savez, les enfants et les jeunes ont tendance à être, dès leur plus bas âge, des utilisateurs et innovateurs sur Internet et ne savent pas beaucoup plus, et en savent beaucoup plus que leurs parents, en ce qui concerne Internet et les risques liés. Par ailleurs, l'Internet, en particulier sur les réseaux sociaux et d'autres médias interactifs, propose de nouvelles formes de vie sociale dans le monde entier, ce qui n'existe pas lorsque la plupart des parents d'aujourd'hui étaient enfants. Malheureusement, malgré ces avantages, cette utilisation de l'Internet par les enfants s'accompagne de nombreux risques, à savoir l'exploitation sexuelle des enfants à ligne, le cyberharcèlement, la cyberintimidation, le dénigrement, l'extrémisme violent, les risques liés à la dépendance aux yeux électroniques et l'effet des écrans, j'en passe. C'est pourquoi la protection des enfants en ligne devrait être un domaine d'intervention majeur pour l'industrie des TIC en Afrique en raison de la dépendance de nos jeunes sur le mobile, l'Internet et les TIC pour apprendre, jouer, communiquer et interagir. Dès lors, il faudrait saluer les initiatives de nos États pour la protection de nos enfants en ligne. Pour relever le défi, faudrait-il d'abord régler la question de la souveraineté numérique du pays. C'est cela que le président de la République a compris en accordant d'énormes investissements pour procurer des investissements modernes tels que les data centers, le parc des technologies numériques, la baisse du nom de domaine.sn, entre autres projets d'envergure. Ces investissements permettront de faire du Sénégal un pays numériquement sûr, numériquement fort et numériquement prospère. Ces investissements ont déjà commencé à porter leurs fruits. En mai prochain, le président de la République procédera à l'inauguration du data center de Djamnyadjou. À la fin de l'année, nous pourrons réceptionner la première phase du parc des technologies numériques, le PTN, e. Si nous réussissons à stocker nos données par nous-mêmes et par nous-mêmes, nous réussirons à coup sûr à protéger nos enfants sur les dérives donc, de l'Internet. Mieux, nous les aiderons aussi à faire un usage responsable avec des innovations et des créations qui pourront compétir avec les autres enfants donc dans le monde donc, du numérique. Au Sénégal, le taux de pénétration des services Internet est estimé aujourd'hui à 88,74%, avec un parc de 14 825 111 abonnés Internet. Et une population dont le, la tranche d'âge se situe entre 14 et 25 ans, qui constitue le groupe le plus connecté au Sénégal. Le gouvernement a fait de cet enjeu une priorité en comptant sur la convergence et la synergie des initiatives et des forces des institutions, autant que des familles et des associations qui se mobilisent sur cette question. C'est dans ce siège que s'inscrit la mise en œuvre de ce plan d'action national sur la protection des enfants en ligne qui s'articule autour de six piliers. Politique et gouvernance, justice, société, médias et communication, victimes et FAI. ce sont les fournisseurs d'accès Internet et industrie. À terme, sa mise en œuvre permettra de sensibiliser les enfants, les parents et les acteurs concernés, mais aussi de mettre en place un ensemble de dispositifs technique pour une meilleure prise en charge des victimes. Madame, Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer sans pour autant renouveler mais remerciements au comité de pilotage du plan national de protection des enfants en ligne, les SMT et l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de formation des acteurs des médias sur la protection des enfants en ligne et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie.